Ibrahima Wo Ndaw le maire Ibrahima Wo Ndaw moom lañu ñu comité bi ak comité communal bi taboon pour ñu représenter Macky Sall ca tribunal. tribunal bu ñu wotee ci bureau yi ba pare ci tribunal lañ koy yóbbu ñu toog fa parti yëpp candidat yi ku ci nekk am na représentant dégg ngeen ci ay rajo ou bien ci ay Facebook ay réseaux sociaux. ñu ne Kaffrine Macky Sall 45 pour cent la fi am loolu du dëgg parce que mbir mi du ay rajo mbir mi du réseaux sociaux du Facebook di wax lu la neex mbir mi ci urne la ci biir département de Kaffrine ci fukk yu nekk ci fukk yu nekk juróom-ñaari Macky lañu lañ te loolu président tribunal la ko atte ñun ñëpp man mii toogaloon foofu maak Ibrahima ñoo fa toogaloon Macky Sall ñu am 70 virgule 90 pour cent ñoom ñëpp c'est entre 68 ak 71 pour cent donc gis ngeen ni liggéey bi dafa leer nañ perdruñ benn bureau de vote dans le département à de deux deux bureaux de vote lañ perdre dans tout le département kon kay nga xam ne fii jël bi dafa leer nañ ni mu leeree fii nag noonu la leeree ci Sénégal jël bi am na ñu nekk Thiès am na ñu nekk Ndakaaru ak Kédougou nekk ci Facebook ak réseau social di wax ni Kaffrine Macky Sall dafa daanu xam nga kon li ngeen di dégg ci Ndakaaru amut benn dama leen di wax lu leer nañ. ndakaaru dañ leen faa bàcc bàcc yu leer nañ waaye ndakaaru fukk yu nekk ñun ñeent ak genn wàll lañ ci am muy 45 48 ñu bàcc leen ba mu leer nañ te foofu la Idrissa dëkk ci département ba ñoom ñoo gañ ba gis nii ci comité d'ailleurs loolu naa ci interpellé SEDA nit mënul nekk SEDA te nga bokk ci parti nit mënul nekk SEDA te ngay xeex nguur c'est pas possible et on l'a vu mais dañoo tëj suñu tëj suñu bët tëj suñu làmmiñ parce que ñu xamoon nañ ni fii jël bi day leer nañ il faut quand même que ñu waxante dëgg dans ce pays nekk pouvoir du tee lu neex nga teg sama der bu ñu la respecté dellool respect bu ñu la jox dañoo agir en responsabilité mais on va pas laisser faire on ay menacé fi ni di mën di wax lu neex chaque jour nga génne lu nga xam ne xamoo ko il faut que ñu arrêté ko xeex ak kuloo dafa defarul ab dëkk ŋaayoo defarul ab dëkk attention ku ci nekk ci ñun na sàmm loolu man moom man man kenn mënuma pamti pamte dama gëm li may def di ko def te le prix pour servir Kaffrine le prix pour servir Kaffrine je ne vais jamais y renoncer. naa ci rajo bi ñu ne deuxième tour deuxième tour xëy na dana am mais buy am entre Ousmane Sonko la ak ak Idrissa ñuy xool ak Idrissa maa ngi ñaan aussi xale yi. ci Facebook bi képp ku ci bise ci deuxième na def MDR MDR mooy meur de rire bàyyi leen ci gis loolu wax bu kenn defal ci waay damaa tiit ak damaa ne damaa looy tiita di dama ni su président Macky Sall nee na su fekkoon rek mooy fal kon heure bii ma nga nekk di préparer pour prestation de serment nee na ngeen jàpp ne te ngeen gëm ne li mu am ci Sénégal yëpp doy na mat na pour que mu jàll au premier tour li tax nag daje bi am mooy gannaaw. bu ñëpp wotee ci jàmm amul benn bureau de vote bu nit contesté bu nit dingat la fa génnee ñi dem ci département yi compté kenn ku ne am la mu am kenn contesté wul léegi nag moom président Macky moo placé la république au cœur de son action politique loolu moo tax moom ak état-major am ñu bëgg ay militant ay électeur am gannaaw bu ñu leen gërëmee gannaaw bu ñu leen ndokkelee ngeen niroog moom doxalin ndax olof nee na lu waay di wuyoo da koy niru lim bëgg mooy état de droit dafa jox président de la république ay prérogatives jox assemblée ay prérogatives jox bu nekk y compris la ay prérogatives en matière d'organisation d'élections après la parole au peuple citoyen c'est la justice tant au niveau des départements qu'au niveau national et en présence des représentants des candidats, c'est à la justice et aux magistrats de prononcer les résultats. Puisque vous êtes les deux à vouloir ruer sur tous les brancards, à vouloir faire feu de tout bois, s'il vous plaît, pensez, aux Sénégalais qui souvent fois sont plus intelligents que vous, plus patriotes, plus efficaces que vous et qui vous ont vote suivi, qui ont voté soit pour vous ou contre vous. Ce pays nous transcende, il nous précède et il nous survivra. Une élection, c'est une parenthèse démocratique. Demain, un autre rendez-vous électoral aura lieu. Prenez votre mal en patience, restez dans l'humilité, mais dans la responsabilité et le sens de la patrie. Mais en ce moment, vous serez grand parce que vous reconnaîtrez votre défaite. Vous vous plaisez à attaquer la presse. Depuis 2000, depuis c'est la presse qui renseigne sur les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, quand on dépouille dans un peut être filmé, ça peut être instantanément envoyé dans les réseaux sociaux. Comment pouvez-vous avoir le toupet, le culot, l'outrecuidance de parler de fraude ou de manipulation de chiffres Ne cherchez pas à diviser ce pays. Ne cherchez pas à vouer aux gémonies la presse. La presse est une branche, la démocratie est indispensable. nous savons que souvent, toutefois, Nous sommes le pain de la, de presse. La commission des jeunes par le conseiller Bilal Sissé, l'honorable député au conseiller Seth Diop, le maire honorable Abdoulaye Wilane, qui nous reçoit ici dans sa commune au quotidien. Au nom des maires, l'honorable Seth Diop, Nilan Ndiaye, je voudrais à cette occasion solennelle remercier tout le monde de l'engagement solennel dans l'unité, la la cohésion, l'esprit de dépassement pour que ce que nous à la victoire éclatante, 72% qui dit mieux que Kafrine. Kafrine a battu le record malgré les moyens limités. Je remercie tous les responsables, les comités locaux. On a fait des proximités auprès des chefs religieux, les responsables des villages, chefs de quartier délégués, tout le monde la main dans la main pour la concorde, pour le seul espoir du Sénégal qui est le président Macky Sall. J'ai toujours l'habitude de dire que Macky Sall c'est le candidat de l'espoir, le candidat de l'émergence, le candidat des couches vulnérables, le candidat de l'engagement, le candidat de l'émergence économique pour le Sénégal en 2035. mbokk yi dama leen bëggoon leen ñëpp ñi nga xam ne jël nañ fi parole wax ji rafet na di sant ñi nga xam ne ñoo indi APR fii Kaffrine Abdoul Aziz Ndiaye ak yaay law jox ak xale yi góor ak magan bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay véritablement par aujourd'hui ñu am victoire bi président de commission yëpp yëpp yëpp yéen lay sant nga xam ne ñoo fal comité électoral dans l'unanimité Parce que c'est extrêmement important de le signaler. Le comité électoral départemental et les comités électoraux des communes ont été montés sans discorde dans la cohésion, l'unité et le sens du dépassement. C'est l'occasion encore une fois de remercier Ablaï Seydou Sow, Ablaï Wilan, Abdou Aziz Ndiaye, Yahinok Diop, l'honorable Nilan Ndiaye, Elaï Seth Diop, tout, au nom de cette, tous les maires. Véritablement, ça c'est très important de le signaler. Les alliés dans leur engagement, la main et la soliditude au nom, à, à, à, par le président député élage Mangan. Tous les partis, je ne vais pas les citer. Si je cite Elage Mangan, je lui donne tout ça, Djokol Tielohom, Moudjot Lima Sant Grum Allié.